ak El euh, jàmm ci xibaar yi yéenekaay du ñu xamal ne euh, jamono kay du ñu xamal jamono ji nag acte bu njëkk ba koy amal yéenekaay gi du ñu xamal ci mbirum Ousmane Sonko euh, jamono ji kay Ousmane Sonko la koy xaar boo moytul dina metti lool ci lii nga xam rek moom lañu ko doon jiiñ lu jëm ci àllu viol ak yu ni mel loolee kay jamono ji crime la ci réewum Sénégal Ousmane Sonko boo moytuwul dinañu ko mandat dépôt yéene gi di la Tribune dina xamal ne mandat dépôt googee du yomb ndax ñi nga xam ne rek ñoom ñoo ànd ak Ousmane Sonko ñoom kay ñeenti ponk lañu sàkk ne rek ñoom ñoo di waa Assemblée nationale laataa ñuy dindi lépp loo xam ne rek jëm na ci mbalaanum kiirlaama yéene gi duñu xamal ñoom kay rapport médical ba la ñuy waaye tamit lépp loo xam ne rek jëm na ci kilifa gi nga xam ne rek ña ngi koy tudd ca ngóogal ak mbir ñu daal di koy leeral ba mu leer naa ñi jamono ji nag mbirum Adji Sarr moom la ñëpp di waxtaane yéene kaay gi du xamal ne moom kay jamono ji mbir ya tàng jër la def yéene kaay gi di Walfadjri di ñu xamal ne ñi nga xam ne rek ñoom ñoo farak Ousmane Sonko dañu cey joxoñ baaraamu tuuma di Yakham moom kay jamono ji jàpp nañ ne moo jëm na ci wàllu kompaloogu ak yu ni mel loxoom génn laas yi ni kaay di ñu moo taxit kay Yakham Mbaye jamono ji ñii nga xam ne rek ñoom ñoo di nekkee ci réewum France artu goo xam ne jot nañ koo amal ci ñii nga xam ne ñoo nekkee ci réewum Sénégal yii ni kaay gi duñu xamale ñoom kay lañu leen xamal mbedd yi jëm Assemblée nationale ñu ngi leen di wax ne bu fa kenn jaar bu fa kenn jege maanaam rawatina fi nga xam ne rek moom moo di Sacré Cœur Les Échos yéene kaay dëggal ko nag mbir na juróom xamal ne jamono nga xam ne rek jotoon nañ leen a jàpp am na ne dañoo ko waaye nag bañ leen wone ay vidéo amatul lu ñu wax exclusive yéene kaay daal Ousmane Sonko lii ñu koy toppee bu dee dëgg la réewum Sénégal nañu wax ne ña ko fay def bari lool lool ndax réewum Sénégal jamono ji ñuy dem ñu dàmp leen fudd seen digg bari lool laas yéene kaay xamal ne Macky Sall kay bu dee nag lu jëm ci wàllu dictature dafa mel ni kay dañu koo testé positif di waa yaanamar jënoog taskatu xibaar yi nga xam ne rek moom la doon amal kàddu yéen ci yëkkati kay moo di Ousmane Sonko moomee dinañ ko jàppale waaye tamit yeneen kuréel yi nga xam ne rek ñoom ñoo nekkee file dinañ ci jàpp ak ay parti politique Le Soleil waxoon jamono ji nag février lañu koy amal covid 19 geeg tolluwaay gi ci réewum Sénégal yéenekaay gi diñu xamal ne moo di Kaolack ndàngaan am ci téeméeri nit yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan boobaak léegi am na lu toll ci juróom gi nee xamal ne maanaam daal borom xam-xam yi nga xam ne rek ñoom ñoo nekk ci àdduna bi gannaaw ak gëstu goo xam ne doon nañ ko amal maanaam daal covid 19 bi fan la bàyyi ko yéenekaay gi duñu xamal ne du loo xam mbir mu doy rakki Ama Baldé joo ne jàppoon nañ ko jamono ji juróom-ñetti ati kaso lañu ko tëj tëj ñu ngi koy toppoo mbooloo mu ànd di defi ñaawte. El Hadj Ousseynou